dégg ci biir Sénégal rawatina ci woy politique yi ñu naan liste bi recevoir nañ kook liste bi recevoir wuñ kook liste bi nangu nañ kook liste bi nanguwuñ ko li ñuy njëkk a ñaawlu mooy ñàkk kóolute gi nga xamante ni gis nañ ko ci way politique yi ci seen biir yéen wóolontewu leen tibbante tànk ak rayante ngeen fi bëgg a nekke waaw nag ngeen bëggee askan bi wóolu leen kenn wóoluwut sa morom ba pare ngeen bëgg askan bi wóolu leen loolu mënul nekk faw ñu joxante cër respectante ànd ànd nawle bu rafet ngir bëgg ngir ñu mën askan bi wóolu ñu tamit à leur tour waaye gis nañu fi mu ne rupture de confiance boobu dafa am entre les hommes politiques et les femmes politiques loolu jàpp nañu ne mënatul nekk leneen lii nga xamante ni seetlu nañ ko fan yi mooy dañoo dégg ne di ko dégg fii ak fële ne kuréel gi nga xamante ni moom la ñu jox muy saytu li nga xamante ni moom mooy wàllu processus électoral bi muy la direction des général des élections gis nañu taxawaay bi nga xamante ni am na ko moom it ñu koy ñaax ci ne liggéey bu rëy moom la amee liggéey boo xamante ni sax waratuñoo xaar li ñu gis ci élection bi tax na ñu jàpp ne la direction général des élections waratul xaar sax élection ngir ñuy dégg kàddoom war nay gunge way politique yi ci xalaat war na leen di gunge ci tàggat war na leen di gunge ci ñu xam charte yi nga xamante ni moom moo ñu tënk ngir yu bari yu ñuy gis bu ñu jógee jëmee ci élection yi ñu mën koo moytu ndax li ñu jàpp mooy sénégalais boo xamante ni sàmmoonte nga ak charte yi bu ñu tollee ci jongante war ngaa mën a bokk wane sa yéene bi ñu gisee nag processus bi jaaruwaay ba fii mu agsi tey gis nañ ne ci ci ci ci ci ci sumb bu njëkk ba maanaam bi ñuy déposé parrainage yi gis nañ ne ay sénégalais yu bari ay sénégalaises yu bari wax dëgg yàlla direction générale des élections wax na leen ne le matalu leen li nga xamante ni moom la ñu bëggoon ci yéen ñooñu it ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ñàkk gee matal teguñu ko ci yoon dem nañu wax fa ñu ko war a waxe fa mbaxane doone benn am na ci ñoo xamante ni it nangu nañ ne liñ leen wax yoon la ñoom wuti nañ beneen yoon boo xamante ni ci la ñuy jaar ngir dëggal seen yéene loolu it jàpp nañ ne réew noonu lay doxee loolu it moo tax ñu jàpp ne ñii nga xamante ni jamono bi ak fu ñu mën a bokk wax nañu leen ne lii moom moo am ne leen mënuñoo jël seeni mbir ndax matalu leen wala jàpp nañ ne yoon bi ngeen waroon a jaar jaaru leen ji ñun nag jàpp nañ ne li ñu war a def ñoom mooy ñu daal di def ni nga xamante ni ñoom la ñële defee bu jàpp bu fekkee ne dañoo jàpp ne dañ leen a tooñ ñu dem fa mbaxana doone benn su fekkee ne dañoo jàpp ne li ñu leen wax moom mooy yoon li ñuy ñaan direction générale des élections li ñuy ñaan le ministère de l'intérieur mooy que ñu doxal yoon ba mu mat sëkk que la loi s'applique dans toute sa rigueur loolu moo tax ñu jàpp ne Sénégal juróom benn fukki at ak ñett ak ñi juróom benn fukki at ak ñett am ci way politique yoo xamante ni mësuñu jóg di baara yugoo ci ndoddu askanu senegal loolu mënatul nekk amul compromis amul compromission nanguwuñu compromis nanguwuñu compromission nanguwuñu baara yugoo li ñu bëgg mooy que ne lii nga xamante ni moom mooy yoon ñii nga xamante ni ñoom ñoo taxaw tey diwut ngir dañoo bëgg a dem fa ñuy yoonale waaye ku bëgg a dem fan ñi yoonale kay nan ngay teggee yoon te demagoo yow danga nga bëgg a dem assemblée nationale di légiférer eggagoo fa di bëgg di tegg yoon di bëgg di bëgg a dóor li lañ koy wax yoon mënul ne c'est pas possible donc daal lii mooy kàddu yi nga xamante ni tey jii bëggoon nañ ko fàttali di wax ne nag Sénégal réewu kilifa ay kilifa ñoom ñoo ko nànk Sénégal réew jàmm lañ ñu bàkke dañuy wax ne réew moo dem fekk bu am dëkk bu tudd xaar yàlla ak jàmm gën réew moom bu ñu sañoon ci jàmm lañuy nekk waaye jàmm mënta am te yoon amut il n'y a pas sans justice tant que jàmm amut tant que yoon amul jàmm pour mu am day jafe loolu moo tax yoon ñu inventé ko société humaine société doomu aadama yi dañu inventé li nga xamante ni moom mooy paix ngir jamono bu ne ñu xool nan la ñuy waxtaane ngir xiiroo yi ak ŋaay yi ñu mën koo weesu te loolu nag ci jàmm rek lay ci ci yoon rek lay amee donc li ñuy ñaan mooy ñu doxal yoon li ñuy ñaan mooy ñu déglu ndawi Sénégal ndax ndawi Sénégal am nañ lu ñu war a wax am nañu lu ñu bëgg a wax waaw am nañ lu ñu nar a wax am nañ lu ñu bëgg a wax xam nañ nit li ñuy wax waaw jeunesse boobu nga xamante ni dañ ko doon jaay doole di ko yóbbu service militaire obligatoire mënatul nekk jeunesse boobu nga xamante ni dañ leen doon taxé de jeunes malsaine jàkkaarloog ñoom amoo loo leen di wax lu dul une jeunesse malsaine loolu mënatul nekk jeunesse bi ñu am mooy jeunesse boo xamante ni chance lañu pour Sénégal ndaw yi Sénégal tey chance lañu pour Sénégal ay ndaw yu xarañ lañ ay ndaw yu am itte ay ndaw yu it yu xelu lañ. ay ndaw yoo xamante ni dañoo dem ba ba ñu bëggee li ñu li wuti li ñu bëgg ngir jëriñ Sénégal dañoo dem nag ànd ak mag yoo xamante ni seen loxo dafa set lool ñu bëgg lool Sénégal ñoom tamit te suñu yitte mooy dundalaat yaakaaru ndaw ñi waaye dalal xelu mag ñi dalal xelu kilifa yi jamono bu nekk li ñu bëgg mu dugg ci nopp Sénégal yi ak bopp sénégalais yi mooy le Sénégal est une promesse de paix. garabu fitna nag képp ku ko suuxat doo ci mën a kerlu de doo ci toog de maam Abdou daf doon wax ne <clears throat> maam Abdou Aziz si daf doon wax ne radiyallahu taala anhu daf doon wax ne boo nekkee ci gaal gi bul ittewoo sa ëmb mucc ittewool gaal gi mucc su gaal gi muccee nga mucc maam Abdou it daf doon wax ne même dans le désaccord même bu ñu demee ba wuute am na lu ñu war a sàmm ba ñu mën a sauver li nga xamante ni moom moo ëpp solo muy le respect mutuel éthique mu théoriser ko tudde ko l'éthique dans le désaccord wuute nañ ay xalaat waaye du ñu ay noon mën nañoo wuute gis-gis ci réew mi ci niñ ko war a doxalee waaye du ñu ay noon ñu bàyyi tibbante tànk bi ak rayante bi ak ŋàññante bi ak waxante bi lu ñaaw na kenn ku ci nekk wax sénégalais yi lan moo tax nga jàpp ne war ngaa mën a dem assemblée nationale taxawal fa sa askan te doo leen wor te doo leen wuruj te doo baara yëgoo ci seen kaw loolu it jàpp nañ ne message la boo xam ndawi senegal ñoo ko yëkkati di ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa senegal yépp ci biir Sénégal ak ci bitim réew di jaale it suñu mbokk moom nekk fële ca Maroc moom it soxna la ñu ne boroom këram moo jël bakkanam foofu it ñu ci sonn ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor wàllu sénégalais yi nekk extérieur ay jàmbaat lañu lool ña ngay def liggéey bu am solo waaye dafa mel ni seen réew da a fàtte jamono yi rek def nañ benn tukki foofu waaye gis nañu ne seen réew dafa mel ni da leen a fàtte ndax ñoom ñëpp picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ca suuf ñibbisi rek lañu bëgg waaye buñ sañoon ñu gunge leen nag ngir ñu mën a am ay kër yu mucc ayib ngir ñu mën a seen doom yi fi nekk mën a jàng ndax ku ci sañoon ci ñoom it sa doom Sénégal lay jànge am yarub Sénégal waaye tey jii loolu jafe-jafe bu mag la ñu ci bëri ci ñoom ils soo obligés daanaka ñu yóbbu seen njaboot bitim réew te li leen gën a loon mooy fii li ñu bëgg fii maanaam sécurité bi am fi santé bi am fi éducation am fi buñ ci góor góorloo seen njaboot fii la ñuy ne ci biir réew mi ndax tukki ba pare tukki rek dafa métti yor fa sa njaboot tamit nekkaat beneen coono leneen li mooy doomu Sénégal yi ñuy buum ci bitim réew leneen li mooy doomu Sénégal yi nekk ci ay prison ci bitim réew leneen li mooy le recensement des Sénégalais de l'extérieur loolu it bés bu ñu demee assemblée nationale dinañ ci taxaw taxawaay boo xamante ni sénégalais fu mu mën di ne ci bitim réew dinañ ko xam xam lam fa yëngu xam lam fay def xam nam fa nekke ba nga xamante ni lii de ak ak yelleefam dinañ ko mën a respecter ndaxte kat bitim réew ku fa jógee sa njaboot nekk ci biir Sénégal gii. tey jii français wala américain wala nangam ku fi ne lépp lu la wokk sa réew day jóg ba ñépp yëg ne sa réew jóg na waaw ñun lan moo tax ñuy boom sénégalais yi ci bitim réew te kenn du leen dégg loolu jàpp nañ ne mënatul nekk loolu jàpp nañ ne mënatul nekk loolu daal moom la waxoon ne tey dinañ ko bokk ak yéen feeñalaat suñu yéene ak suñu taxawaay ak ànd bi nga xamante ni ànd nañ ko ak jëmm yu tedd yi gor yu tedd yi nga xamante ni ñoom lañu àndal ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy bëgg a doxal ba nga xamante ni euh, dinañ ci euh, ànd ànd boo xamante ni ànd bu mucc ayib lay nekk ànd boo xamante ni ànd bu rafet lay nekk ba nga xamante ni li ñu bëgg li sénégalais yi di xaar ci ñun sénégalais yi xaaruñu ci ñun kenn ku ci nekk di fëgg sa dënn wala di wane sa bopp sénégalais yi xaaru ci ñun kenn ku ci nekk di bëgg a wane man maay diw sénégalais yi lenn rek la ñu bëgg ci ñun. mooy ñu fàtte suñu bopp ngir jeexal seen coono sénégalais dañ nañu da ay ndaw ngeen fàtte leen seen bopp ngir yàlla te waxal ñu ñun fàtte leen seen nekkinu bopp ngir nekkal ñu ñun waaw coalition les serviteurs nag dañoo jóg ngir jëriñ askan wi waaye bëgguñu leen a jëriñoo ndax jàpp nañu ne njëriñ dëgg mooy nga jëriñ askan wi askanu senegal sonn nañu loolu lañ leen bëggoon a xibaar tey dund gi cher na lool te dégguñu kenn yëkkati ci yàpp yi dund ki cher na lool nit ñi sonn nañ lool wayjur yi sonn nañ jigéen ñi sonn nañ ndaw ñi sonn nañ ñun nag dañoo bëgg taxaw ngir dundalaat seen yaakaar bu wér te loolu xam ngeen bu wér ne loolu ngeen di xaar ci ñun dinañ koo matal bu wér insha allahu taala kon ñoo ngi leen di gërëm di bàyyi xel tamit jàpp xel tamit jàmbaar jooju nekk fële ca France ci Paris Saint-Germain tudd Idrissa Gana Gueye di ko wax ne ko suñu soutien jotal nañ ko ba noppi ndax suñuy relation may nañu ko waaye coalition des serviteurs ñoo ngi koy yokk doole di ko wax ne ko dinañ nekk ci sa wet jamono bu ne noonu lañ koy defee tamit ak sportif yépp ndax monde sport tam bokk na ci monde bi ñu gën a fàtte monde sport bokk na ci monde bi ñu gën a fàtte surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy def sport individuel ñuy def sport individuel fàtte bi ñu leen fàtte yéeme na mënuñu leen a sax organiser organiser bu am solo bari na ci ñoom ñoo xamante ni tey jii bu ñu dem compétition seeni ñoom ñoo leen di dajaleel pour ñu mën a dem barina ci ay champion yoo xamante ni aujourd'hui dans des disciplines individuelles daanaka dañuy bu ñu feebaree sax mënuñoo faju te ñun ci réew mi xam naa ci ñu bari loolu bari na ci sénégalais ay ay ay sportifs yoo xam dinañ dem am raaya suñu ñëwee kenn du leen dégg. ndax sport individuel la ñuy def donc boo njabootee nag da ngay njaboote ñëpp yemale ñëpp góorgóorlu ci ñëpp feeñal ci ñëpp donc lu sport c' est les infrastructures c' est les ressources humaines yi nga xamante ni ñoom ñoo koy yor donc Idrissa Gana Gueye coalition les serviteurs ñoo ngi lay manifester seen soutien seen jàppale seen taxawaay ah ak doomu Sénégal yi nga xam yépp ñoo nekk ci bitim réew yenn saa yi ñu bund xatal leen bund xatal yoo xamante ni daanaka dañuy wër ba sonn ñu gis ku leen taxaw ñun wax nañu ne bés bu ñu demee assemblée nationale dinañ leen taxaw taxawaay boo xamante ni fu ñu fekk non seulement fu ñu nekk dinañ leen fa fekk waaye saa bu ñu soxlaa dinañ ñu gis seen bët dinañ fexe ba du xonq wala saa bu xonqee dinañ ñu gis ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax euh, coalition les serviteurs